salaamaaleykum internet yi ñuy nañ leen jaar leen ñu ñëw ak ci xibaaru tàggat yaram yi laataa ñu ñëw ci yaatal gi nag dañuy ñaan képp kuy gan ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné

ñu koy jénnee bi match bi jeexee ki koy tàggat ñett muy Thomas Tuchel nek coach bu euh, Chelsea euh, wax na ci euh, lutax tax mu jéene Kalidou Koulibaly bi match bi defee 75e minute bi mu jakarlo taskatu xibaar yi li waral mu ko neena Kalidou Koulibaly dafa ñëw en retard dafa yexé a ci club bi di Chelsea yexa a ci entraînement yi également tamit dafa amone ay cramp loolu mo taxoon mu Kalidou Koulibaly wante nee na sur le plan physique Kalidou Koulibaly wanen na wane na la fulla fayda ak jom te jàppale na ci ligue bi Krépin Diatta na bi bi mu dugal euh, démb euh, tudd na ko képp koo xamante ne jàppale na ko tey jii ba mu ñëwaat ci terrain yi football ndaxte ci fàttali Krépin ci blessure bu metti la jugee démb nag bii bi mu dugal contre Strasbourg mu nekk bii bu exceptionnel euh, première journée Ligue 1 Monaco moom moo gagné woon démb Strasbourg deux bi za 1 Krépin dugal bii bu exceptionnel gannaaw bii bi nag nee tudde na ko képp koo xamante ne tey jàppale na ko ba mu ñëwaat en ne mooy Monaco nga xamante daf koo teg ci condition yu leer nañ ak euh, fameem euh, yi nga xamante ne gis na message yi ko envoyé euh, daat koy ak ki nga xamante ne mooy Jérôme Plessis moom mi nga xamante ne dañoo souverandoo ensemble métit bi pendant six mois nee na tudde na ko ñooñ ñëpp ñi nga xamante ne jàppale nañ ba doon liggéeyam rek doyul pour mu ñëwaat ci terrain mais loolu loolu noonu gars yi jàppale ko ko nee na du ko fàtte mukk en tout cas nee na euh, kontaan na loolu euh, ñëwaat ci terrain yi daal di dugal euh, Krépin ñu ngi koy ñaanal rek mu nekk ci forme ba ñëwaat ci équipe nationale bu Sénégal. jàppale ñu ci coupe du monde bi incha allah. ñu jógee ci Krépin Diatta jàll ci Keita Baldé mi nga xamante ne jamono yi moom euh, amul club wante club yi koy courtiser bari na fële ca Turquie ca Italie euh, euh, muy Konyaspor ak Sampdoria de Gênes wante jamono yi bu ñu sukkandikoo ci AS mi ngi xamle doomu Sénégal bi di Keita Baldé fële ci Espagne la bëgg a delluwaat. plus particulièrement à Valence ci club boobu di Valence la Keita Baldé bëgg a dem doxal fa. kii tàggat Valence tamit di Gennaro Gattuso Keita Baldé kon jëmoni Valence ñi ngi dox ci biiru euh, Keita Balde mais ce dossier encore l'un d'être réglé euh, parce que Valence bëgg na mais Valence da fay jankonté ak problème euh, financier yu metti kon Valence pour mu xaatimal contrat doomu Sénégal bi di Diao Balde il faut mu jaay ay jour ngir libérer masse salariale bi instant bi wante wa Valence ki ñu bëgg jaay moy Maxi Gomez et Marcos André lolo tax doomu Sénégal bi d'ailleurs di refuser yeneen club bi ngir tok xaar club bi di Valence mu Euh, régler situation boobu après mu xaatim contrat ba joué foofee ca Espagne kon mbokk yi li leen leen andi dina wax ba ci kanam ci beneen vidéo euh, bu neexee yàlla jaa ngeen jëf